tey dañu ñëw fii ci école fallu galas mën nañ ne bu ñu ñëwee école fallu Gallas dañ naan ñëw nañ ci école yi nekk sant ci département de Mbacké bu ñu duggee fii rek juróom-ñaar la day mel ne dugg nañ yëpp naam am na yuñ ci jot a wër nemmi ko xale ya fa nekk xool doxalinu examen yi fi ñu toll ñaax leen soññi delloo leen wax li nga xam ne moom la doomu aadama war a yëg ci boppam bu ñu dollee gëm seen bopp ci góor góorlu tey bàyyi xel seen i wayjur ak seen ay ndigali wayjur képp koo xamante ni kii wàcc nga jamono am nga ay wayjur ñu sàmm loo leen li xamante ne moo dox diggante doom ak ña ko jaboote ñu yàlla dogal it ña leen jaboote yàlla dogal na seenub liggéey mat na nekkatuñu àdduna ñu soññi leen ngir ñu leen di fàttaliku di leen ñaanal di sant wajur yi fi nekk ci taxawaay yi ñu am ci seeni doom ba tàmbali loo leen am njàng ca fa ñu tàmbalee ba agsi ci daara ju mel nii bay def tey ay épreuve bac sunu boroom mottalil leen ba ñu am ko ci tawféex te bu ñu ko amee ñu mën koo jëriñoo di sant aussi di gërëm ñi nga xamante ni ñoo leen yore woon lu jiitu ñuy agsi ci war a def bak ku ci ne am ko foo jaar ba agsi fi képp ku yoroon xale buy def bac rek ñu ngi sant di la gërëm ci taxawaay yu rafet yi nga xam ne jàngalekat yi am nañ ko ci biir njaboot gi ndax njaboot gi suñu njaboot ci biir loolu mu ñuy gërëm président Serigne May sek ak ñi mu àndal ci liggéey bu rafet bi nga xam ne yàlla dogal na at mu jot toll na ci juróom benn at ñu tàmbali ko yëg ne seeni rak ñoo nekk fii ñoom ñu jaaroon ci xam yendoo concentration ci looy def ngir bëgg koo am ni mu mette boo tolloo ci waxtu war a pause maanaam taxaw dallu tuuti ngir war ko tàmbaliwaat coonob xiif ba ca nekk ak coonob mar ba ca nekk te jënd di ko jënd ñëpp yàlla baaxewul leen ñu mën ko ndax stress bi nekk ci ñoom mais aussi ndax jekku nañ ko pour def ko ñoom ñu jaaroon ci xam lim loolu li muy def ci nit ñu laxasaayu moom ak ñim ko àndal ñëpp nag jël seeni xalaat teg ko ci bu waxtu wi jotatee ñu waaj li ñu am ak li ñu mën seet ñi nga xam ne ñoo dëkke dëkk bi te am yéene bëgg a jëf waxtaan ak ñoom ku ci nekk di yëkkati la nga am def ko ci ni ma koy waxee nag euh, ren jëf ji jëf yi képp ku bëgg lu baax la te di ko sàkku jëf yi képp ku dëkk ci département bi la mais rawatina njabootu Cheikhul Khadim bi ni ma koy waxee mën naa ko firndeel soxna Ami Mbàkke mi ngi nii taxaw ci suma wetu ndeyjoor lu ñu fi jëf day mel ni moo ko jëf jëfaaleel ko si kuy mbokk soxna Roqay Juuf mi ngi nii ci sama càmmoñ lu ñu fi jëf taxawaayam ak yitteem day mel ni moo ko jëf jëfaaleel ko képp kuy xarit di mbokk di ab taalibe kon sëriñ May yow ak mbooloo mi nga àndal laxasaay di liggéeyal yàlla ci jaamu yàlla yi am na mag mu baax yal na yàlla dolli ay yërmandeem fa mu nekk muy sëriñ bu Baaxe moom sëriñ sàmba mos naa ay kàddu wax ma ko ci mbirum joxe ñam ne Serigne Modou Mamoun am na yàlla dolli ay leeram moom maam Cheikh Anta moo ko waxoon ne ko Serigne Touba moo ko wax ci gémmiñam mu dégg ne ko ku bëgg a raw de da defar aw ñam wu mel nam war a mel di ko joxe te yàlla tax te jëf ji ngeen di taxaw ci xale yi jëf ji wane na yàlla tax amu ci kenn ci yéen koo xamante ni kii. ki ngay jox li nga koy jox xam nga ko wala ràññee nga ko da ngeen xam ne lu leen war la ngeen war a taxaw seen njaboot ga ci biir kër ga te ñuy jóge ci département bi fi ñu jóge ci dëkk yu ndaw yi ñi saret la ñu yéeg ba ba ñuy gis oto bu ñu dugg mën fee agsi tumuranke yooyu nga xamante ni jaar nañ ci ba agsi fii buñ ci boolee ab xiif boole ci mar dana metti ci ñoom kon mel na yéen li ngeen di dajaloo di ko dajale muy seenu tuut ak li kenn ku ne di dajale di leen ko jox man de sant naa ci yàlla sant la ci soxna Ami yàlla sant la ci soxna Roqe yàlla ak képp koo xamante ni ki rek ñoom ñoo la fi représenté ndax lu ci waay jëfoon boo ñëwee fii ci waxtu wi gis xale yi ak ni ñu nekke danga am beneen soññiku ci sa bopp bu tax nga war a góorlu di gën a rafetal say jëf waaye di gën a xalaat ne loo ci defoon ren bu dee war nga cee def lu ko waxoon naa la ko bi nga ñëwee keroog ngeen ñëw indil ma budget bi nga xamante ni mooy defar lii an mu jot ni nga ko waxee du dañu koy wax pour ne ñoo ko jëf dañuy gëm ne lu ñu jëf ñu nag ñëpp ko bokk da nga daan def bu at mi jotee nga ñëw man la man dama la ameel cant ameel la ngërëm ndax ku bëgg a def lu baax ne la kaay bokk ci kooku moo la dimbale kon président Serigne May yow ak ñi nga àndal man maa leen amel sant at mu jot bu ngeen mosaan ñëw dañuy xool li ñu am mu tuut mu bari ñu yëkkati ko teg ko ci sa loxo mu toll ci téeméeri junni li nga ñëwee ren wax ma ko mani la yaa ma waxal sa bopp dama sëriñ bi dañ la koy ñaan ngir jëmmi sëriñ Falilou te amuñu lu sëriñ Falilou rawatina li ñuy waxtaane ci école buñ ko tuddee la ñu nekk muy taw feex kon mani la woon yaakaar naa ne am nañu yéene lépp lu ngeen fiy def danañ leen ko lijjantil teg ko ci seeni loxo du man maa koy joxe dama gëm ne yàlla suñu borom mi nga xam ne moo bind doomu aadama yii fii daje faw mu jox leen li ñuy yittewoo ci fan yi fi fiy nekk man dama ne woon yàlla mi leen koy jox na ma yónni ci yéen yónneen ba day mel na dama koy doxal képp ku ko war a jëf kon yàlla suñu borom moo yónni ay julliti yàlla yoo xam ne li ñu dajalee li ñu dajale jaar la ko ci suma loxo man ndaw rek laa ci yëkkati ko jox la ko to wax naa la it ci sama biir kàddu ne la ci dëkk bi fi lañ dëkk sa càmmooñ boo xoolee kër Cheikhul Khadim kër Cheikh Amadou Fadal mi ngi fi yàlla dogal na fii la ñu gënee àdduna ma ni la yitte jii ngeen nekk fas nañ yéene ci sunu pas-pas li feeg noo ngi fi ci kàttanu sunu borom te di ko mën fas nañ yéene waxtu bu dikkatee naam na nga seeti ku lu mu am mu def ko ci ndax wàññiwul dara la def dana mën a dugg ci leneen lu école yi di yittewoo waaye lépp lu aju ci ñuy def bac ci Mbàkke at mu jot bu ñëwatee nee naa la jaayante nañ fa ko tegoon nit mooy fa ma la ci lay rek faw ala kulli haalin añ bi ngeen leen di yéen ñu am ko man nag may ñaan yàlla man Galas Kaltoum suñu borom di dajale loola dama ko jox di ma ko yëndi ci yéen kon loolu moom jaayante nañ ko dañ ko boole ci xidma bi ñuy liggéeyal Cheikhul Khadim ndax lépp ab liggéey rek la la ci des mooy aspect politique bi nuñ dañuy politique engagé wu derrière benn leader bu tudd son excellence président Macky Sall am lu ñu séq ak moom mu am ay taxawaay si biir réew mi taxawaay yoo xam ne muy man mi taxaw di wax ak yow ak soxna Amy Mbacké Daage mi nekk sama càmmoñ nekk candidate suppléante ci liste bi ak soxna Rokhaya Diouf mi nekk sama càmmoñ nekk ci liste bi ma bokk te diriger ko dañu am engagement boo xamante ni bii dañu ko am à travers président Macky Sall nekk ñoo xam ne dañu koy jàppale ci politique bi muy définir ci Sénégal mais ñu am ci beneen gis-gis muy politique bi nga xamante ni dafa concerner département de Mbacké mais particulièrement Touba jëfi président Macky Sall ci Touba mooy ndey di bàyyi jëfi président bu fi mos a jaar te jëf li ma wax it dafa am firnde ay gëstukat ngeen ay journalist ngeen ñu fi nekk boroomi xel lañ këru xam-xam la ñu toog ku yor sa bindukaay ak sa kayit na nga dem nga chiffré lim fi jot a def chansam la mu nekk ndeyu baayu képp ku fi mës a jëf tey liggéeyal sa nation ci biir département ak commune bu mel ni Touba importance bi mu impacté wu bi muy impacté wu ci biir réew mi mais fi mu féete yoonu murit kooku nag bu fekkente ni yëkkati na loolu jëf ko ñu xam ko di ànd ak moom day baax aussi bu ñu amee occasion yi ñuy leeral ne président Macky Sall duñ ne ko mukk gàcce ngalaam pour ñun dafa teel pour ñun jotagul mais danañ ne ko waaw góor waaw góor nag tuuti na gàtt na mais ku jëful dara doo ko dégg. li ñuy xëy ñun ñi nga xam ne la ñuy investir ak ñi nga xam ne ñooy responsable yi nekk ci département bi doon ko def ci pré campagne bi ba suñu joni tey ñu ngi sant yàlla loolu mais bi ñu ko sant yàlla ci li ñu jot a def ba ne am na lum ñu mën a jurul ci résultat boo xamante ni bi dana amal coalition bi njariñ yëg nañ ko mais taxul ñu ne nañ yem foofu mais toujours ñu ngi jàpp na rek lu ñëw lu ne la ca des ma naata sax li ko waral mooy réew mi moo tëddee noonu te am na nit ñoo xam ne li ñuy jël ci seen làmmiñ di ko teg ci deru askan wi pour ñuy déglu lu ñu war a dégg dafa bari mais ñun nit li ñuy fas yéene mooy li ñuy yëkkati ci suñu làmmiñ di ko wax askan wi ñu koy dégg muy ay réalisation président def na ko fi yu xamante ni ku xool ak sa bët da gis ki gisul nag neexut a waxal wala neexuto wan nit boo ko mënta wan li nga gis sa xam ne lu dëggu la bëgg ko gis aussi doog ko mën a wan mais yow mi ko xam te gis ko yaay fas yéene dem ci ñi nga xam ne war nga leen koo jottali muy ci sañcaan yi ak ci biir dëkk bi ku ci nekk nga wax ko ne ko fii président liggéeyam fii la toll yéeneem ak pas-pasam mooy jëlee ko fi mu toll jàllale ko feneen te li ci responsable yi nekk ci dëkk bi ma nit ñi ngi ciy góorgóorlu seen kéemtalaayal kàttan ci wàllu lépp loo xam ne nit soxla na ko te di ko xar ci état li ci responsable yi nekk ci dëkk bi mën ñu ngi ciy góorgóorlu seen kéemtalaayal kàttan ci taxawu askan wi.